Ilaaji Amadou Sidibé dafay faj mboolem jafe-jafe bu ngeen am ci wàllu bët moo xam muy cataracte début ay bët yu myope bët yu lëndëm wala boog ay bët yu xasan Ilaaji Amadou Sidibé dafay faj hémorroïde moo xam muy bu nëbbu bi wala boog bu feeñ mandargaay hémorroïde bu nëbbu nag borom dafay seere nga yëg sa biir bi di jooy sa biir bi di yuuxu fu mu toll mbaa ngay ballonné wala sax nga yëg ni sa biir bi daa diis gan dem ba jàpp sa ndigg li di ko metti it bu feeñ nag borom dafay seere lu yàgg booy dem douche muy génn mu am picc wala boog muy génnee bul ci ginnaaw mbokk yi bu ngeen sentiree benn ci yooyu le mandarga daw leen gaaw ngeen seeti amadu Amadou bi maa la ko wax bu jëflantee ak yow ba noppi. jàngoro bi ma àndal ñu naan ko hémorroïde ndoxum siti waaw yaram bi moom day dagg rek. da ngay waaw da ngay wokkatu rek. ma xool de moom tagul weer na ceng weer na ceng. sa teen bi est-ce que yow ci àddina moom moo la faj. wallaahi billaahi wallaahi garab boobu kon ay garabam jar na dem uti ah. te kii moom mujj faj. damaa yore woon ndoxu siti ak hémorroïde dafa ñuuloon kukk sama tànk yi dafa amoon lu lakk sax lakk spécial dafa meloon ni dafa lakk mais vraiment bi mu ñëwee ci Amadou Sidibé garab yi ma defal jox ma ba léegi nii. amul lenn loo xamante ni ma koy sama yaram dangaa am ndoxum siti sa yaram di tàng la def yaram bu diis yaram buy metti mbaa muy xasan boo ko wokkee mu nàcc mbaa sax nga yëg sa suufu tànk yi di tàng jër wala nga sentir ni sa bopp karaw yaa ngay ruus sa karaw di dagg maa la ko wax El Hadji Amadou Sidibé daf koy faj ci deux semaines dong dafay faj góor gu tëlee nga néew kàttan ci wàllu sëy booy sëy di gaaw a yegg bu fekkente ni dangaa am yëg-yëgu ni li nga yor dafa nooy ba booy sëy dafay faral di wàcc El Hadji Amadou Sidibé daf la koy fajal ba mu wow koŋ daal di def koddu bu ko defee nga daa di mën di sëy sëy wu mucc ayib mbokk yi El Hadji Amadou ma nga ca jàmmalaay 3 ca tali bu nekk ca ginnaaw armée lu yoof ya janoo ak parking ba ñuy raxasee oto fa jigéen ñi di fóote maa la ko wax foofee la El Hadji Amadou nekk wala ngeen jokkoo ak moom ci numéro téléphone yi woote leen ci 77 226 22 22 yëngatoogul de. <laughs> allahumma salli ala sayyidina. waa ah dërëm nag yow ah, dërëm kii similoo ko matériel ami sax. Ah. Eh. doora nga sab. <laughs> man de ci yëngal laa tolloon sax de. de eh, laa def rek. yow xaaral ah. damay kat sa ay waay ay waay. ay waay ay waay ay waay nee na ma bàyyi nee na ma bàyyi bàyyi na nee na bàyyi ma bàyyi bàyyi na ay waay waay waay nee na ma bàyyi wuy yaay ñëw leen ñëw leen ñëw leen wuy gaa ñi ñëw leen nee na ma bàyyi nee na ma bàyyi moo ko barke yàlla moo ko moo ko nee na ma bàyyi nee na ma bàyyi nee na ma nee na ma bàyyi bàyyi nee na ma bàyyi gaa yi bàyyi waay nee bi nee na ma bàyyi nee na ma naa bàyyi nee na ma naa bàyyi waay kii dafa ragal waay waay dugal balaa dugal waxu la nga bàyyi. nee na ma jugo dafa ragal xam nga lan la bàyyi naa. naa non ñëwal rek. moom moom ko. ñëwal barke moom ko may leen ma may leen ma sangu ñëw ndekete ah. ah ah, ah? ah? sangu néew boo koy sang. gàjja bi sa wax a gi bëri. damay damay expliquer rek. ndox maa ah, ngi. waaw ngay def yëngal. waaw eh, eh, eh, xam naa xam ana eau de Javel wax jaa ngi bëri wa eau de am. Ah, waaw am ndox lañ fi teg. waaw yëngal. waaw waaw baax na bisimilah wax ji bu bëri rek amul amul amul li ñëpp ñam na ko ñëpp ñam ñëpp ñam. Ah. néew la. waaw. Ah. allah yaa rasulallah. Hmm. Ah, maa ngi ci. ba xam nga lan la nag xam nga lan la. xam nga lan la da ngeen may bàyyi mu ko mën a concentré wu ndax sangu néew daa am yoon. njàpp benn la ak xob bi. njàpp benn la ak xob doole ma bàyyi ma xob ma xob lay ku ci bëri ji moo baaxul. ay waay yi poqataan ba boo wala yaay wala wuya xoole kii nii wuy yaay yaay waa néew bi néew bi néew bi néew néew wuy wuy wuy xat wuy xat xat na ma yow xat na ma yow xat na ma yow xat na ma yow neexat kii moo mën a fen nag moo waay bàyyi sa fen waaye tamit nag xam nga yow da ngaa mën a fen néew buy xëtaate fu mu am wala yow daf maa xët ah. déedéet daf maa xët kii nekk en position eh, normale kii kii xeexkat la war da ngaa jël loxoy da ngaa jël loxoy waaye néew bi moom benn wax moom waxu la bàyyi ma ah waxul loolu ah. damaa def nii waxu la bàyyi tamit nii laa def ah. waaw nii doon def nii mooy yëkkati ki ki ki ba bàyyi. ah waaw nii lay def koy nii lay def koy. yow man mi sax eh, xam naa waaw gis nga yow génn boo ne nii boo ne nii gis nga aj nga day mel nii day wàcc loolu la lii la ah waaw man nag man c'est très simple aca aca comme nag yéen yéen ñëpp nag amul leen liggéey sérieux bàyyi ma numbe ah, euh, euh, ah kaay kaay yéen ay tapen ngeen rek génnal génnal génnal yow looy mel ni ku ku ku mën a sang yow yaa ni Mandumbe. waaw ah, ah, ah Kumba. waaw eh, ñun ñëpp rejeté nañu. waaw ñun ñëpp rejeté. da ngeen bàyyi. bàyyi na ngeen jël xaalis jaaroo bu dee bëgg a bàyyi. après man maa leen kay. ah, ah. ñu géré. géré leen mu gën de. xaalis. ok eh, eh, génn leen képp. xoolal leen ñu foofu foofu. kii pa amoo amoo fa amoo amoo. jë jërë nga wuy ma nag amoo euh, euh, euh, ndox la loolu kay yomb na. loolu yomb na jaar wax yu bëri ci sax mën naa ñaan. ah ah daal eh, di aj mu ngi aj. ah toog waaw tëddee rek waaw affaire moomu ñu. dama koy tale xool xool ni ngay santee baaxul. nga defal nii. xool jël bopp ko bi léegi xool dañuy sëñ nga ko nga commencé xool. nekk leen ci rek xool lan la. maa ngi ko maa leen nokk léegi. nokk ko mais sëñ. bàyyi leen barki yàlla xatuma leen alaaji amadou sidibé kii mooy faj gars yi kii moo mën gars yi kii mooy jàppale jaamu yàlla yi moo ngi fi ci jàmmalaay trois nord foire ci ginnaaw miiru almeeri yoof yu mag yi fi nga xam ne foo la séeréer si di fóote foofu taxaw boo laajte alaaji amadou sidibé ñu wan la ko gaaw leen ci nu mu gën a gaawee ngeen jël ay numéro ak adresse am ci écran bi xoola garabam bii nga xam ne faju général la ñu ko tuddee lépp loo xam ne danga nga koy yëg sa yaram lan la nga baxal nga naan nga xool nga def une semaine wala trois semaines nga faju général lépp luy mettit sa yaram dootoo ko ñi nga xam ne da ngeen a yor hémorroïde doomu aadama di ballonnement de ventre soo lekkee du gaaw a rees sa biir di génn ngelaw foo mën a toll mu dem ba indi la seere boo xam ne xamoo foo ko jëme bu yàggee rek mooy indi bi nga xam ne dafa feeñ dafa ci di génn deret xoolal bouteille yi nga xam ne rek dafay faj li nga xam ne hémorroïde bu nëbb am na bouteille yoo xam ne ndox la am na sunguf te lépp dafa naturel xoolal per yi nga xam ne da koo indi lépp loo xam ne dafa jëm ci hémorroïde bu feeñ rek bi nga xam ne dafa def picc di génn deret soo ko jëlee boo ko defee ci ginnaaw c'est fini dootoo gis hémorroïde picc ba day dellu deret de taxaw ne dañoo témoin ci Alaaji Amadou na ko Alaaji Amadou Sidibé kenn yow ci mim réew yow yaa ñu faj dañ leen seetaan ñëwaat. yoroon naa hémorroïde yor ndox mi siti ak puissance ko am fu ne dugg naa ko moom pour pour pour pour pour fajoo. mais bi ma ñëwee si Sidibé foofu la sama jàngoro bi affaire yëpp réglé woo fajoo. jàngoro bi ma àndal ñu naan ko hémorroïde ndoxum siti waaw yaram bi moom day dagg rek. da ngay waaw da wokkatu rek. de moom ceng weer ceng. damaa yore woon ndoxu siti ak hémorroïde dafa ñuuloon kukk sama tànk yi dafa amoon lu lakk sax lakk spécial dafa meloon ni dafa lakk mais vraiment bi mu ñëwee ci amadou sidibé garab yi ma defal jox ma ba léegi nii amul lenn loo xamante ni ma koy sama yaram sama tànk daal li nekkoon mooy hémorroïde ak ndoxum siti siti bi nu meloon ci man du ma nelaw guddi sama tànk yi day tàng jër du du dis gan nag teg ci mm-hmm. waaw di xasan teg ci su ma toogee nii sama lupp yi pooj yi ni day xasan xasan xasan bu métti hémorroïde bi des fois damay dem toilette du ma mën a dem toilette. waaw kon ban genre hémorroïde nga amoon. hémorroïde buy nëbbu bi la yaakaar naa. bu nëbbu bi mooy bi lay seere. waaw bi may seere mu ngoog voilà. ndax bi nga ñëwee ci moom faj na ko. waaw bi mu ñëwee ci man faj na ma ko tubaar fa kàlla gis naa wér bu baax a baax a baax a baax ci moom. baax a xanaa ku la déggal day dana ñëw. ah en tout cas de ku dégg lii. bee nga taw ñëw si gaaw. macha allah waaw tubaarfakalla mooy borom jaam yi de. kenn du moom kenn leen ci nu mu gën a gaawee ngeen jël ay numéro ak adresse am ci écran bi ndax kii kat ñàkk koo xam warul benn yoon bu dee da ngaa yor ndoxum siti ndeyi jàngoro yi mi ngi noonu garab yu bees yaa ngi nii moom la indi bouteille yii ñooy faj li nga xam ne moom mooy ndoxum siti xoola genre pommade yi nga xam ne bu fekkee ne ndoxum siti bi daf la jàpp say loxo say wee di gaaw a yàqu sa diggante loxo yi di def ay tërgën di génn ay picc ngay wokkatu foo mën a toll bu dee jigéen la na koo téye du mën a am doom bu dee góor la mu yàq man ni woom bu dee da ngeen yor impuissance sexuelle ah! ah alaaji amadou sidibé kenn du moom ci impuissance sexuelle maa la ko wax góor gu tële góor gu ma néewum néew góor gu néew kattan jàmbaar jaa ngi nii moo indi garab yu bees yaa ngi nii te lépp naturel la gàncax ak reen xoola garab yi jinnay fajkat yaa ngi nii de yemul foofu ndax day faj bépp feebar bu jëm ci wàllum bët ba ci cataracte bàyyiwu ko si cinq minutes la koy faj rawatina bu ngeen amee ulcère wala estomac ñëw leen ci moom mu jox leen bul boo mu gën a gaawee ngeen jël ay numéro am ak ci écran mën a ko neexal ñëw cabinet mi ngi noonu saa yoo ñëwee rek sa xel dal ndax ay garabam ñooy jaay boppam kenn du moom bu leen ko tardé nu mbelaan ma nu mbé nu mbelaan ma nu mbé la mbé nu mbelaan lu tax tabaski ak ma nu mbé